ورضي الله عن شيخنا وسندنا شيخ الأكبر الكبريت الأحمر وصاحب الختم الأبر والقوث الأشهر والخطب المكتوم تاج العارفين وممدهم شمس الولاية الكبرى والقتم المعلوم سيدنا ووسيلتنا إلى ربنا ومولانا أبي الحباس أحمد بن محمد السالم التيجاني jaalana allahu mimman saqaahum min faydil maarifi bi axsamil awaani mbokk yi ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi leen di nuyu tey di leen ziyaar waaye di leen ndokkeel bu baax ci digg aljuma gi di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala yàlla boole ñu nangul ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa mbokk yi ñëwaat ngeen seen émission bu mag boobu di xam sa diine ànd ak seen soppe seen xarit Babacar bi ak Tidjani fii di Joal Fadiouth TV comme ni ñu ko waxee woon rek ñëwaat fi tey indiwaat sunu xarit suñu rakk suñu soppe oustaz Mouhamadine Mansour Diop ni mu leen ko waxee woon rek di doomu dëkk bi mais gëstu xam-xam ñor ko moom leen andiwaat tey si sunu émission xam sa diine fii di Joal Fadiouth TV su ko defee laata ñuy continuer ak programme bi rek ñu bayiko ak mu nuyo mbokk yi nga xamni ñoy ci suivre euh émission bu mag bi di xam sa diine fi di Joal faju TV bismillah yaa ustaas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المكار بسم الله الرحمن الرحيم الواحد القهار الحمد لله رب العالمين العزيز الغفار ونصلي ونسلم على سيدنا محمد النبي المختار رحمة المحدات للأكوان وخيرة الأخيار وعلى آله الكرام وأصحابه أنجم الأنام المهاجرين والأنصار وكل من اختفى بآثارهم ما كبر الليل على النهار ورضي الله عن كامل الأنوار والأسرار معمر المساجد والزوايا ومنورها في العسي والإبكار منقذنا من الهلاك وردا بمواظبة الأوراد والأذكار أعني به شيقنا وسيدنا ووسيلتنا إلى ربنا أبو العباس أحمد بن محمد سالم التجاني الفاتم الحسني رضي الله عنه شمس الولاية الكبرى جعلنا الله من أحبائه ومن أهل ولايته وعاتانا بجاه العظيم قضاء جميع الحاجات والأوطار أيها الإخوة والأخوات نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gannaaw bu ñu santee yàlla julli si yonenteem bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla yàlla bu mu deñ mukk di dotti ay ngërëm ak i leer si suñu sëriñ ba Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu di nuyu xalif général des Tidiane sëriñ Babacar Sy ibnu Cheikh Seydi El Hadji Mouhamadul Mansour radiyallahu anhu di teg ci nuyoo bi loxoom mu jote nañu ko mbooleem njabootu Seydi El Hadji Malick di leen ñaanal yàlla yal na yàlla dooli leen sutura dooli leen taxaw di nuyu mboolem xalifa généraux yi ci réew mi yëpp kazalika di leen ñaanal yàlla defal leen sutura ak tawfiq di nuyu ayima yi ci dëkk bi yëpp di nuyu madame la maire di ziare ñëpp di nuyu Serigne Babacar Bey ak euh, suñu caméraman bii di Galo di ñaan yàlla ZFA yàlla gën leen a dolli jàppandal ba seeni liggéey gën a jëm kanam bu ko defee tamit ñuy nuyu suñu sëriñ daara di Mawlaaya Idriss Seck bu al amin di ko ñaanal yàlla yal na yàlla dolli wér dolli ko sutura dolli ko kàttan yéene bi mu am ci lislaam bi am ko ci tariqa bi waaye rawatina suñu kër Cheikh Sidi Hadj Malick yal na yàlla mottali ko ku defee daal ñu ngi nuyu mbokk yi nga xam ni ñu ngi suivre télé bii di ziyaara ñëpp ci aljuma ji waaye di leen di baalu xaq ci korité bi nga xam ne ci lañ jóge di leen baal di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal bu ko defee sëriñ Babacar si kàddu gaa ngi noonu. sëriñ kër bee ñu ngi leen di jox kàddu gi. mbokk yi mi ngi noonu nuyoo oustaz Mouhamadine Mansour ku ko dégg rek mooy nuyoo bi nga yëg ne jaar na fi nga xam ne fa doomu soxna yi di jaar. waaye ñu jaar ci si nuyoom rek sukkandiku waale ci nuyu waale sëriñ Babacar si Mouhamadine Mansour mboolem njabootu maam Seydi Hadji Malick yëpp wàcc si réew mi xalifa généraux yëpp nuyu leen ziar leen jox leen seen wàcciwaay mbokk yi ak seen soppe Babacar bi ay Tidiane seen émission bi xam sa diine tey nag ñu fas yéene nekkaat ak yéen ci terrain bi incha allahu taala si guddig aljuma yi ci waxtaanee kan yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wala waxtaanee ñi nga xam ne ñooy wali yàlla yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi wala wala boog nekk fii ci Sénégal tey ñu tànn ci benn euh, nitu yàlla boo xam ne tariixam muy tariixa Cheikh Ahmed Tidiane Sarif chaque jour chaque vendredi incha allahu taala ak oustaz bi àndil len ci yonent bi wala lenn ci li nga xam ne mooy mbindu mag ci ci nitu yàlla yi nga xam ne ñi moom nañ yàlla jagleel tey nag oustaz Mouhamadul Mansour fi mu ñu ñëwal ñu ñëpp xam ko mooy ku dégg nuyoom rek xam fi mu jëm kon du guddal ndax comme problème temps la ñu bàyyi rek mu duggoog ñun ci thème bi bisimilah. waaw Serigne Babacar. تاي دانكا سنيو جوتاي موي وقتاني طريقة شيخ سيدي أحمد التجاني شريف رضي الله عنه واي سنيو وقتاني طريقة دنياك نيو وقت تي موم خمنا نك بلن اميشون لي دون مغنى ياتو تي بيوغرافيم واي نك دنان تي ليرال توتي شيخ سيدي أحمد التجاني سيدي يونتي بي صلى الله عليه وسلم لا. boo ko toppee day dellu ci Fatima. Mm-hmm. ndax Fatima moo amoon ñaari doom. Mm-hmm. ñuy wax Ousseynou ak Xasan. Mm-hmm. boo toppee ci Xasan. moom mooy ñëw ba ci Cheikh Sidi Ahmed Tijani. radiyallahu anhu kon tariqa bi mu ñu andil. muy tariqa ya waaye mu ngi jugee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. dana jaaxal ñenn ñi. parce que damay wax ni seen gëstu àggu fa. walla it seen wërsëg nekku ci. ndax tariqa am. dafa doon tariqa boo xam ni. dañ ci interdit nga propagande nit pour mu dugg ci. ba si sa doom. kon da ngay bàyyi nit ki ak sagoom. ba mu am yéene dugg ci nga gaaral ko sart yi mu d'accord. mu soog cee dugg. sart yi danañ ci ñëw. ak fadlul mutaaliqiina yi. Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bi muy am juróom-ñaari at la mokkal alquran la ko wattu. bi muy am vingt et un ans mbooleem funooni ci xam-xam mu gëstu ko mhm. waaye nag mu ne taaxat ximati ila ahlillaahi mhm. sama yitte jóg na mhm. ma seeti góor yàlla yi ci la jaar ci ay tariqa yu bari du fi xaj waaye nag fi mu mujjee ci mahmoudul kurdi yu gannaaw bi mu ko joxee tariqaam cheikh sidi ahmed tidiane yi jógee fa mu dëkk dem màkk aji jaar abi samaxuun فلا جيسك مامم يقظة لا مناما تلك جوخ لم كجوخ وبعد ما خدمه كرديو رأى النبي المصطفى الصفي دفاي جاخل ني بري داخ يونت يال محمد صلى الله عليه وسلم نان لا في جوغي با بري ني ديكو غيس سيدنا شيخ نديكول واخ ني يونت بي دنجكاي غيس يقظة لا مناما ابو العباس المرسي دفني لو احتجب عني رسول الله ساعة ما عددت نفسي من المسلمين koku def ni buma toge ben waxtu bo xamni jakaruma ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam dootuma limaaleeg sama bop ci julit ñi Abdou Samad arhawi tamit waxna ni gis na yonent bi yaqdatan la manaaman abul abbas abul asazali imam asazali nee mom gis na yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaqdatan la manaaman kon Seydina sheikh njëkkul wax lol bo deme ci tere biñu wax halul aqfal imaamu suyuti yu dafay wax ni mu ne yonti bi sallallahu alayhi wa sallam nee na day dafay dund ci bàmmeelam comme ni nga xamee ni moom lañ ko xamee woon di ko gis day dox ci goxu ardi yi ci goxi suuf di dem ci ba ci malakuut kon kooku deugal na ni yonnti bi sallallahu alayhi wasallam fàdduwul kon mu ngi fi suñuy beut le fàddu waye mu ngi fi si la xaji maalik law lam yaluh fi fadail kawni talaatuhu tabxal bariyatu fi zalma'i allah neena leeru yonnti bi bu wul won ci aduna ñun ñëpp ci lëndëm kéeféer la ñuy dee te kon deni l'islam mu ngi fi nek ba legi kon leer gogu du fay kon boo d'accordee ne yonent bi salaay salaam nekkatu fi rek mhm. kon da ngaa bëgg wax ni leer googu fay na mhm. te leeru yonent bi du fay kon mu ngi fi ba léegi mhm. kon dama nii ki nga xam ni dafa dàq ni yàqsatan laa mën a man mënul nekk bu gëmee yonent bi it worma bi mu ko war a jox des na daraja ji ko war a jox des na waaye nit yàlla yëpp d'accord nañ ni gis yonent bi yàqsatan laa mën a man lu mën a nekk la kon kooku la ñu fas yéene waxtaanee tariqam tey ci lenn ci ay ngëneelam waaye it ci suruuti ndax jamono fi mu toll tey nit dafay jàpp tariixa bi waaye du xam suruuti boo ko defee ñàkk gi mu koy ñàkk xam mooy waral worma yi nga xam ni ak li nga xam ni war na ci digganteem ak la mu jàpp du ko xam su ko defee baaw a kër dañuy ñëw ci lenn li nga xam ni mooy fadlu mutaaliqiine mooy ngëneel yi nga xam ni tey jii aju na ci tariqa bi Seydi Haaji Malik dafay wax ni yaa ayyuha naahiqu kayfa tunkiru diyaa a suben haaridan yantasiru nee na mbir mi leer na leer na naññ nee na xëy mi ŋaax ba mel ni mbaam nee na naka ngay weddee leeraayu suba boo xam ne garsi na ba weesaaroo ba ku gis sa morom xàmmee ko nan ngay weddee ni suba jotul nee na ngay weddee kon gëstu ko moo war balaa nit di weddi nag dafay gëstu Mm-hmm. man lam yuxit bi jumlati sharia mm-hmm. inkaaru li mahlikin zaria mm-hmm. dafay bokk ci ponk la ci cirque ngay weddi te yow sa xam-xam ci fànn ba ngay gëstu ba ngay weddi nga xamee ni Seydina Cheikh yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox na ko tariqaam na Cheikh da ko demandé garantie ndax dañu ko man li bootu sama gannaaw dafa yaat te dama bëgg yor loo xam ne ñëpp dañ ciy jëriñu lan la ko njëkk a garantie oula damaanul li xisbihi al mawta ala al imaani mhm. lam ko njëkk garanti mooy képp ku jàpp sa tariqa mhm. buy génn àdduna day génnaale ak yàlla kon yëgal ne nit dana sonn ci jaamu yàlla mhm. di julli di jàpp di julli di jàng alquran waaye nag dana dem ba toll ci sukkuraat seytaane ñëw jaxase ko mu dee ci kéeféer te kenn du xam waaye garanti boobu la njëkk jox seydina cheikh radiallahu anhu mu tegal ko ci ni ki képp ku jàpp sa tarixa te bàyyiwu ko buy dee du yëg métti sukuraatu dee maanaam méttitu nu wextanu dee du ko yëg taxfiifu rabbi sakaraatal mawti anhu min al maudi doonal fawti mu ne loolu dee la boo xam ni képp ku jàpp si tarixa bi defal nañ la ko muy garanti wala wala yaraw na nag fi l gayra ma yasuruhum subhaana xaaliqi sama si la xaj maalik nee na du ñu gis seen bàmmeel dara luy nuroog lu leen di tiital ci seen biir bàmmeel waaye bu yowmal qiyaamee nga xam ni yàlla day wàcce jant bi degré bi nit ñi dañuy taxaw tàngoor bi jàppuleen ba seen yuuri di bax nee na déedéet taalibi seex bi du ko yëg ndax islaaluhum fi zilli arsh laahi yowmal qiyaamati fa yàllallaahi dana leen keral moom bur yàlla képp koo xam ni njabooti Cheikh Seydi Ahmad Tijaani nga ci keram kero arasam nga moom bur yàlla boo doo yëg boo doo yëg tàngoor boobu loolu lépp ci ngëneel gi la ki nga xam ne jàpp na ci tariqaam waaye nag jawaazuhum kawaahil al malaa'iki ala siraati minnatan lil malik danañu jéggi siraat ci kaw joggare nag dana gën a gaaw xef ak xippi ni mu gaawee nee na da gën a gaawee noonu ndax asra min tarfati ayni dana gën a gaaw noonu te siraat moo gën a ñaw lañ set waaye moo gën a yëngu jaanuk ñàngoor boo boo gaañ waaye moo gën a lëndëm wax set kon siraat djegi ko problème la mune way yow talibé bi nga xamni bok nga ci njabotam mom Seydina Cheikh mune ci kaw joggare malaaka yi ngay djegge sirat dem aljan mune yadkhuluhum bi ghayri ma xisaabin jannatihi kalla wala iqaabi danañ dugg aljana bur yàlla ci lulul ñu leen di hisab ci lulul ñu leen di réglé waaye danañ dëkkeeg yonenti bi ci aliyina fi nga xamni mo gëna kawe ci aljana ndax jannatul firdawsi mooy aljana bi gën a kawe ci aljana waaye luusement ba ci gën a kawe mooy alliyiina moo tax yonent bi salaay salaam ne alliyiina laa gaayatan fawqaha wala matdabun baadaha alliyiina daal amul benn càkkutéef bu nekkaat ci gannaawam waaye amul lu ko gën a kawe nga ne waa ku jàpp tariqa bi bokk na ci ngëneel yi ki ko jàpp garanti bi moom day dugg aljana waaye tamit ki ko ki ko may soxna day dugg aljanna mm-hmm. ci garanti bi la mm-hmm. ak ki mu may soxna mm-hmm. waaye ay juram tamit ci garanti bi la waaye sët yi nga xam ne ay doomam yu góor moo leen jur neena na loolu ci garanti bi la kon garanti bokk na ci garanti yi yi nga xam ni ki jàpp ci tarixa bi yooyu lañ ko garanti duñ ci sori ndax dafa am li nga xam ni mooy tax base bi dëgër mooy suruuti ndax damay dégg suñu góor gi mu ne mag ñi li ñu am gannaaw bi ñu déggee garantie gëm nañu ko waaye dañ koo jol teg ko seen ron sijaada fa yéene nag jaamu yàlla te yàlla tax jaamu yàlla te yàlla tax yàlla defal na ma nangam waaye yàlla defal na ma ko nag lam ma sant du lim ma defal looloo tax de waaye sant gi ma sant ma jaamu ko ci lay sukkandiku jaamu ko kon jaamu googu dafay nekk loo xam ne da nga ko war a def li wajhi llaahi taala moo tax Seydi Hajji Maalik nee na رضي الله عنه شرط الطريقة للطريقة لا له حتى تذول بموته لا تغفلي نينا شرط الطريقة بي طريقة بي لنيال وهي نيال سيد الناس يخبر بوفي جو غير غني شرط الطريقة بي ديغنا موتاخ موني شروط الطريقة بي موي ليغا خامني موي باف بيغا خامني تاي جي ني موي ليغا خامني موكاي دغرل ndax bu ne suruti ñaar fukk lañ ak ñett juróomi mooy suruti sixati waaye ci des yëpp suratu kamal lay doon. oustaz laataa ngay dugg ci surut yi. bi ngay ubbi danga wax ne maanaam tarixa bi maanaam nit yàlla boobu di Seydina Cheikh. radiyallahu taala anhu wa daana bi amin pour nit ñu xam ko. faw ñu gëstu ko wala boo chance la boo xam ne yàlla lay baaxee nga bokk ci. Eh, li koy dëggal Serigne Babacar radiyallahu anhu dafa wax ne. wa kam unaadin tamannaw bi suluki ala usulubi bii. maa xadaa man xaala wa tiini loolu mooy dëggal ne sa wax bi nga wax ne yàlla lay changé mais nekku ne yaa am yaa am bëgg bi rek tax nga doon taalibe tiijaan euh, boo demee ci yàqutul farida daf lay wax ne ayuhal muaridu anna inna iraadaka minna law aradnaaka jaalnaa kulla maa fiika yuridna nee na yow mi ñu dumooyu ñun la neex nga dumooyu ñu taxaw fële di ñu xas waaye bu ñu neexoo ñu récupérer la def la nga doon nitu yàlla kon Mm-hmm. doonul lu ñuy propagande. Mm-hmm. waaye yàlla moo lay baaxee nga bokk ci. Mm-hmm. sëñ Babacar. Euh, beneen bi mooy euh, si jaar jaaru jaar jaaru yontu yàlla Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. ak jóge gi mu fi jógee ñuy am xel ñaar ndax yonent bi danañu ko gis wala duñu ko gis. Euh, da nga wax fi nit ñi nga wax fi si nit yàlla. imaamu Malik. imaam Malik ñëpp xam neen ko. ci ci fiqu l'islam bi sariya bi. imaam Malik dafa waxoon ne moom. amul benn bis boo xamante ni mu toog fanaan bi maddatu mu nawara te bëtam tegewut ci yonti yàlla muhammad kon luy wane ne maanaam yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xatal aan mi ngi fi comme li nga wax ne ñun ñoo lottu pour gis dëgg-dëgg yonent bi maa fil bariyati man lam tashqihi karaman min nuurihi rabbana yallaahu yallaahu amul benn mbindeef boo xam ni nandalul na ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo demee ci yàq euh, fakixatulaab bi mm-hmm. moo la koy leeral mm-hmm. nee na la euh, nandal na moom bur yàlla mm-hmm. mbindee fi juróom-ñetti yoon mu ngi lay dina leen nandal yàlla ba mu amalee ruux yi nandal na leen waaye tamit mellal gi muy mellal doomu aadama ci biiru yaayam nàndal na ko fa leeru yonent bi bibi doomu aadama di gën a àdduna nandalu leeru yonent bi moo tax mu mën a jaar fi mu jaar ba génn kon soo dàqee ne yonent bi nekkatu fi ndax ki dàq ni kenn du ko gis yàqsat la mën a amoon da nga dàq ni yonent bi nekkatu fi ndax nu ko alquran di wax wala taxsab anna alladina qutulu fi sabilillahi bal amwaatun inda rabbihim yurzaqun kon gars yi dañoo faddu ci suñuy bët waaye ñu ngi fi ba tey kon boo waxee ne yonent bi kenn du ko gis da nga dàq ni leeram nekkatu fi te leeru yonent bi moo tax lépp luy fonctionner si àdduna rek di am انه ما خلق الرحمن شيئا لنفسه سوى سيدي المحمود وهو الحبيب بسم الله ني بايل نغ دوغي لغي سروتي تيجي كيغا خامني تاي جابنا الطريقه دي دا فا ام سروتي ني واخ سروتي صحه شرط ييغا خامني موي تخ بو وير دي وير دي بي وير دار دوتو تي مانكي بن بو تي مانكي رك وير دي دوتول وير ndax euh damay wax mm-hmm. ñi nga xam dañuy wax sayidina Cheikh ne ndax lamuy def déggu ñu ne lamuy muy wax dégguwul ak sharia dañoo jàngul wala dañoo gëstuwul Seydina Cheikh dafa atti ñep daf ni lépp lu ngeen dégg ñu ne mako wax nat leen ko ci balance sharia su deppo ak sharia yëg leen ni mako wax bu dëppoowul xam ne dañ mako waxal way waxumako ko kay wàcce na àtte na bopam ak ñep ko ñu nañ dem gëstu kan moy kooku ak lamu jàngale ak limu mu andi suruut yi nak yi lima la wax legi bokku na ci képp ku ko jàpp tariqa bi mm. Mm. julli juróom da koy fonk mm. waaye ca mbooloo ma kon mënoo wérdu benn wérdu muy wérdu laazim wala wazifa te julli woo ba pare kooku kay tegal na la sharia li sëriñ Babacar Si radiyallahu anhu di wax ni euh, ndey ja ndey jaaka doom ak doom jaaka nuroo mooy sharia bi ak tariqa bi benn boo topp bu jàppee tariqa bi mënoo bàyyi sharia benn yoo ndax da lay lépp looy def rek danaa la defal nangam ba pare kon bala nga wér di faaw nga mat nga def julli ba pare kon surut la nga matal julli juróom waaye tamit ca mbooloo ma bi ci topp muy ñaareel bi ci suruti sixaat yi nee na boo jàppee tarixa bi doo ko bàyyi ba koroog ngay dee kon képp ku jàpp tariqa bi amul dama koy aj jàpp naa tariqa bi waaye dama koy aj da koy dégg ñeneen du ko wax bi nga ko jàppee rek la la wér di tàmbali di war moo tax yonent bi salaay salaam ni ahabul amaali ila llahi adwamuha wa in qalla li ñu gën a sopp ci jëf yi ngay jëf di ko jaamoo sa boroom nee na mooy li sax donte lu néew la kon wérdi bi képp ku ko jàpp da nga koy saxal ba ko roog ngay faatu ñetteel bi nag boo ko jàppee doo ko boole ak beneen wérdi soo ko jàppee dootoo ko boole ak beneen wérdi moom dong ngay jàpp kon tariqa bi da ngay dégg ku naan la am na mbokk mu doon dégg Habibou Sarr di ko wax ni moom de day mayee tariqa bi te moom bokkul ci tariqa beneen tarixa la bokk ñu naan kay balaa nga naan naam day fekk nga ne waaw sa sangoogoo di sangaate kon képp ku jàpp tarixa bi doo ko booleeg beneen tariqa waaye tamit képp ku jàpp tarixa bi ci ñeenteelu sorte bi nga xam ne mooy surati sixati mooy doo ziyaara beneen waliyu ziyaara tëbbu waaye ziyaara nemmi dara nekku ci nemmi sa mbokk jullit dara nekku ci waaye nag ziyaara bu boo xam ne ziyaara tëbb al istimdaad bu ñu ko waxee mooy lu lay yokk sa wàllu yàlla mm-hmm. nee na ziyaara boobu doo ko ziyaara beneen wali yu bu bokk ci tariqa bi mm-hmm. waaye moo xam wali buy dund la waaye moo xam bi faatu la mm-hmm. mu ne juróomeelu sarta bi mooy képp koo xam ne jàpp nga tariqa bi su sofeel ci Seydina Cheikh dafay wér doo da koy sopp ba ko ngay dee waaye da ngay sopp képp koo xam ni bokk na ci tariqa bi sa mbokku taalibe rawatina nag ki nga xam ni moo la jokk ci tarixa bi mooy sa cheikhu tarqiya mu ne sarta yooyu ñooy suróotu sixat yi nga xam ni bu ci manqué rek nee na boo wér dee wérdu bi di wér yi ci des nag suruutu kamal la pour mu mën mat bi ci njëkk lim ci wax moy kilay mal tariqa bi na fekk mu am digal joxe ko kon képp kuy jàpp tariqa Cheikh Sidi Ahmed Tijani da ngay xol muqaddam bu am digal ci tariqa bi kon am nga droit boo demee ci muqaddam bi laaj ko silsilaam mu wax la silsilaam nan la jokk ba ci Cheikh Seydi Ahmed Tidiane moo tax borom yàqutul fari farida day wax ni fa inum ta axzal wirdi faqtar muqaddaman taqiyan saxixal isni waaye al ajilati boo demee bay jàpp tarixa bi demal nga jàpp ci ki nga xam ni ndigalam wér na ci mu joxe ko waaye da doon ci jamonoom ku raw ñi raw ci si jamonoom mu ne bokk na ci suróot yi tamit ñàkk a wóolu xem bur yàlla moo tax damay dégg ci góor gi mu ne yow mi bokk ci tarixa bi dañ lay yiir ba doo gis fi nga toll buñ la ko waroon 5 heures balaa 18 heures 17 heures balaa 18 heures nga nga murtat ndax garaat ba nga toll doo fogoon ni yàgg nga fa nga bàkku moo tax sama góor ga ba alaaj Mansour ni kam min jibbaarin kibaarin xatta mansibahum amnun min al makri la taaman maraqika bëri woon na kuy ponkal ponkalu di rëy rëylu mhm. ci marta bi yi muy yëg ci yàlla mhm. wala daraja ji muy am mu xëy yàlla sippi ko ba mu set nda mhm. ëtt yàlla loolu bokku ci ana bokkul ci yàlla ana bokku ci yàlla rek a fa nekk kon dafay yàqal nitu yàlla nga yëg ni yow dara nga ne loolu boo ko defee rek da wóolu wóolum pexem yàlla te yàlla rek moo jagoo ne man maa man maa fi ne waaw kon bokk na ci suruuti tamit sëriñ Babacar dajee wasifa li nga xam ne nag mooy gàllankoor ñu bari te boo jàppee tarixa bi danga nga war a def ci mbooloo ma lu dul da ngaa am ngànt ñu bari duñ am ngànt ñu bari jàpp nañ ni buñ jàppee tarixa bi wér de benn weer wala benn at yegg nañu tarixa bi amul loolu da ngay wér de ba ko roog ngay faatu da ngay wér de ba ko roog ngay faatu kon boo ko jàppee danga war di dem ci mbooloo ma ci wasifa ba waaye jotaay wasifa yi léegi boo fa demee dafa am yéeme na mm-hmm. wasifa dañ koy jàng mm-hmm. da dem jàng salaatu bi mm-hmm. muy salaatul faatihi ba baat yi wér nga jàng jëhuratul kamal ba mu wér waaye nga xam li nga xam ni mooy sarte yi nga xam ne bu ngeen fa dajee di wasifa mooy war dangay ñëw ci mbalaan wasifa fekk kii toog fële kii toog kii toog fële dañoo war a ñaw dajaloo dende sësalante sësalante googu noonu dana leen yóbbu ci ma maqaama yoo xam ni mën nañ koo amee fu dul foofu moo tax dangay gis euh, ku ñëw ci wasifa lank na toog ci mbalaan bi dem beru fële soit nee na day wane ne day suufee suufale déedéet suñ taxat bi kal majaalisu fajli sànn wala taqsidil adna li xaw fi dasisati Mouhamad Fatahan Asifi nee na bul suufee suufeelu ngir ni da ngay suufee suufale déedéet boo ñëwee ci mbalaan bi fekkal fi mbooloo mi yem nga ànd ceeg ñoom neena boo moytuwul suufay suufale gi ngay def nee ragal naa ni seytaane moo la beddi teg la fële kon dajee wasifa boobu nee na loolu surut la waaye it lawa lawazimi mooy bu suba beeg bu ngoon bi dafa war nga def ko waaye bi ci rawati nag mooy xadaratul juma fi ñu toll ci jamono da ngay gis ku jàpp tarixa bi waaye yëgul ni xadaratul juma bi daf ko war boo xoolee léegi ni koy organiser dafa yéebe mm-hmm. mel ni genre folklore lay doon mm-hmm. affaire u bës lay doon déedéet. Mm-hmm. nit jaamu yàlla amul loolu. Mm-hmm. jaam nga. Mm-hmm. jaam moom amul lu dul lu dul lu dul mu wàcce boppam ci kanamu yàlla. yëg ni moom jaam la dafa war a jaamu yàlla. kon wasif xadaratul juma niñ koy organiser léegi war nañ ci bàyyiwaat xel bu baax a baax. xam ne jaamu yàlla la. te diggante bi muy am. heure bi muy am gannaaw bu ñu julee tàkkusaan ci bisu aljuma. ba keroog jant bi di so. boo ko faatee boo doon toog. diirug jamono di ko wér di mënatoo koo fay kon loolu lu mat a bàyyi xel la ci ki nga xam ni jàpp na ci tariqa bi bokk na ci suruut yi tamit képp ku jàpp tariqa bi amul benn julit boo war a am xaar ma yàlla julit yépp da nga war a nekk ak ñoom ci jàmm waaye nag ci dëgg rawatina nag mbokk taalibe bi nga xam ni yéen a bokk tariqa bi waaye ma jàpp tariqa bi nga jàpp ko ñii noonante te bu ñu dajee ci jàkka ji bu ma ne bu ma waree wax asalaamaaleykum yaa toog sama day joor mm-hmm. ndax kon asalaamaaleykum boobu noonu yéene nga ko mm-hmm. képp ku jàpp ci tariqa bi danga war a góorgóorlu nooyal sa xol ba lépp lu la nit ñi di teg nga muñ ko kon waroo dogante kenn loolu ci suruuti la bokk mm-hmm. waaye bokk na ci suruuti ah euh, nga bañ a joxe wérd te amoo ci ndigal léegi dangay gis ku ñëw ci kilifa di yóoti ci ci moom lijaasa lijaasa dafa doon loo xam ne nit dama dégg ab Sarr doon ko wax tariqa bi dañ ko militariser da ngay mm. maaj mm. ba jegoo garaat bi ñu jox la ko mm. kon képp koo gis muy dem di laaj lijaasa rek ah dañu waxante dëgg yoyowu ko mm-hmm. te lijaasa tamit ñi ko am war nañu bàyyiwaat xel bu baax mm-hmm. ñoom dafa am sarta yu tegu seen kaw mm-hmm. waaye yore lijaasa foo tourné di wane ni yow da ngaa yore lijaasa lijaasa dañ laa wax pour nga jokkale nit ki ci tariqa bi waaye li la ci war bàyyi woo xel ne bu yomal xiyaame dinañ la ko laaj kon muqaddam yi war nañ ci bàyyi xel waaye war nañ bàyyi xel ci yeewaat njaboot gi lan mooy tariqa bi tariqa bi base bi xam-xam la base bi xam-xam la kon ki ñi ci nekk ñépp naxuñu leen ñu bokk ci waaye dañoo jàng xam ni lii ñu leen andil uhuh. lu wér la ñu bind ci ay téere uhuh. kon loolu ci suruut yi la bokk uhuh. waaye bokk na ci suur ci euh, ci ci suróot tamit mm. euh, nee na nga wormaal Seydina Cheikh mm. ak lépp lu mu njaboote mm. waaw waaye bokk na ci suróoti laab gi nga xam ni war nga ko laab sa yére mm-hmm. ak sa yaram ak ci place bi nga xam ni moom ngay toog bu jamono bi ngay wér mm-hmm. waaye jublu xibla tamit nee seen Sëriñ kër ci suróoti la bokk mm-hmm. waaw xam naa bu ñu ko taawim li ñuy wax rek mooy comme programme sele mhm. la temps rek lay doon mhm. waaye li li ñu Oustaz Mouhamadine Mansour andil dëgg yàlla ak gëstu bi nu mu ci sonnee ñëw rek daanaka mu yem foofu du nekkul lu ñu gënal mhm. waaye mbokk yi comme problème bu heure la dañuy comprendre kenn ku nekk sama loolu xam ne problème heure la waaye man ni ma déggee waxtaan wi mooy dëgg-dëgg thème bi fa ñu ko soxlaa yegsee guñu fa waaye nag yàlla ñu ngi fi yàllaa ngi fi incha allahu taala dinañ fi ñëwaat ak moom ñu teg suñu baaraam foofu noonu incha allah mu ñëwaat ak ñun jàllalewaatal ñu li nga xamante ni mooy programme bi nga xamante ni moom moom la ñëw ak ñun su ko defee eh, ñu nuyu ñëpp sant leen gërëm la waaye li ma ci dégg ci waxtaan yi mooy bayit bi ñu fa àndi léegi ne sëñ Babacar moom la wax kon man ci commencement waxtaan bi ci laay yëg ne kon dëgg dëgg nga doon taalibe tijaan lu xususiyaat la maanaam yàlla moo koy jagleel doomu adama bi kon mbokk yi ñi nga xam ne yàlla jaarale na leen ñu nampatal ci anwaar yi nga xam ne moo bàyyeekoo ci Seexuna Tijaan yi Serifil Fatimina Hasani nañu xam dëgg dëgg lu ñu amaat te beneen bi si biir waxtaan mi ngi wax ne jaam ab rek la war a doon warul doon leneen lu dul jaam samaam si daaj maal dama ne abdun saliilun faqiirun qaasiun wajiilun sujja aasifun yallaahu yallaahu kon nag mbokk yi nañu defaat suñu bopp jaam ñu mën am garat bi nga xam ne moom la ñuy soxla ci yàlla ndax baatu jaam bi te la yàlla waxee woon yàlla muhammad subhaana alladi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام te ba muy dem wuji sama borom subhanahu wa taala baat bu mu yóbbaale mooy baatu jaam kon mbokk yi loolu la ñu oustaz Mouhamed El Mansour andiloon su ko defee dañu koy bàyyi mu nuyoo tàggoo ak tàggoo bu du tàggatoo incha allah ñu daal di tëj jotaay bi ndax comme problème heure la oustaz waaw sëñ Babacar comme ni nga ko waxee problème mu contrainte de temps la waaye bu ñu sanoon dina gën a yaatu ndax li aju ci tariqa bi Euh, dafa bari te nit ñi war a ko xam tarixa bi képp ku ci bokk danga war a jàng wax dangay dem ci daara ja dëkk fa de waaye même boo nekkul ci daara ja dafay jaadu nga am sa ustaas bu lay leeralal kon tarixa bi tarixa jàng la xam-xam la woote wootewul xiiroo ak ŋaayoo waaye wattigul propagande mhm. kon boo gisee li ñu jàngale si tarixa bi mhm. taalibi cheikh bi warul am jotu mhm. toog fenn di dàggasante wala di xuloo te loolu du li nga xam ne moom lañ ko sampee mag ñi lañ ko sampee réglement la yoo xam ne képp ku ci tënku jaamu yàlla ak liggéey dangay gis ku ci jàpp nga baal ma comme temps bi dafa jeex da gis ku ci jàpp euh, di dëngee ay waajuram te tarixa bi képp ku ci jàpp da nga war a wormaal say waajur comme bépp sëriñ booy dem mm-hmm. mu lay dox muy dox diggante sa way jur xamal ne du waaja mm-hmm. way jur mooy lépp mm-hmm. boo bu sa digganteeg moom rataxul rek mënatoo def lu saf yàlla nu mu mën a mel wormaalal xam ne way jur la njaboot gi nañ ci bàyyi xel jamono li fi xaw doy na waar waaye nañ ci gën a bàyyiwaat xel soo bëggee sa diggante ak sa borom la tax ñu fonkaat way jur yi waaye ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di ñaanal way juri si kër gi yàlla sàmm leen dool leen sutura di nuyu mbokk daara ja mm-hmm. euh, buñ ci jiitalee Serigne Cheikh xaaji mm-hmm. Mahamadul Mansour Ka mm-hmm. ak ñoom Haaruna Guèye Seck ñu yóbbaale ñu ñëpp di ziyaara ñëpp di baalu xaq ñëpp bu ko defee asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi mi ngi noonu loolu la ñuy oustaz Mouhamadul Mansour andiloon seen émission bu mag bii di xam sa diine fii di Joal Fadiouth TV ngeen àndoon si seen mbokk seen xarit seen soppee soppe kër bi ak Tidjani waaye laata ñu delloo micro bi rek ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di nuyu waa daara ja Oustaz Adama Badiane mboolem njabootu waa daara ja Ibrahima Sall Mor Mbaye ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di nuyu Baye As Dieng marabu nekk ca dakaar ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di nuyu bu baax soxna euh, Mame Marie Dieng Sall madame Dieng ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar bu baax di ko jox wàcc waayo waaye laata ñu delloo micro ba léegi ñu jàllale waale li nga xamante ni mooy programme bi nga xam ne ñu ngi koy organiser fii ci dëkk bi mu nekk le 21 incha allahu taala mooy programme mu journée xasida fii di Joal Fadiouth muy waa jaalibatul maraqi bi ñoom ñoo koy organiser fii ci Joal le 21 la ñu ngi ci woo jullit yëpp di leen koy yëgal gàmmu njol maam Abdou la 14 incha allah fee ci ngéeñeen ñu ngi ci woo jullit yëpp ñoom it ndax dëkk la boo xam ne Seydi Hadji Malick moo ko joxo ñoon ndaw ñi joxoñoon ko mag ñi kon ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di nuyu bu baax sama soppi bi oustaz Mouhamadine oustaz Harouna di ko nuy bu baax di ko ziar di nuyu sama caméraman bi as galo moom it ko nuyu di ko ziar di ko ñaanal lu mu caméra rek yàlla na baax si barke yonent bi sallallahu alayhi wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu